maa ngi faculté. et da nga commencé waat nga dispen dispenser ay. octobre ay cours. je commence en octobre. ah vous allez commencer en octobre. Oui, mais amuloo si appréhension euh, ce retour en en en, en zone. Euh, quelle pourrait être euh, après toutes les positions que vous avez euh, eu à prendre en tant que ministre de la de la justice surtout Euh, amuloo ci appréhension que mu obstruer un peu euh, le canal des échanges euh, et des discussions entre yow ak les étudiants. yàlla dimbali na ma ba nga xamante ni àgg naa ci ndimbalu yàlla niveau boo xamante ni université fu ma neex laay jàngale je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle waaw dama dama plafonné lépp donc su ma neexee doctorat yi laay jàngale su ma neexee ma jàngale master su ma neexee ma jàngale première année fu ma neex rek ma jàngale ndaxte yàlla moo ma dimbali ba am naa agrégation nekk professeur titulaire de classe exceptionnelle yàgg na depuis 2015 laa nekk professeur titulaire de classe exceptionnelle donc souvent euh, xale yi may jàngal thèse yi may encadré ak yi may def ay mag lañu yoo xamante ni ils sont d'âge mûr am nañu expérience donc ba nga xamante ni no bu am dara yàlla def na encadré na euh, à peu près de thèses de doctorat yu ma encadré ñu si bëri nekk nañu ay professeur agrégé comme man am na ñu nekk ay maître assistant du Sénégal rek ah Sénégal Guinée Mali RDC Togo Bénin donc tu vois c'est-à-dire que bon boo xamante ne soo fa àggee di jàngale doctorat di jàngale ci master yi y a pas problème parce que souvent les étudiants sont d'âge mûr am nañu ay acquis am nañu ay savoir yoo xamante ni pour nga jàngal leen du am problème et puis bon étudiants yi aussi gis naa ne bi ma décidé jëw ñëw université ñu bëri kontaan nañ. ils l'ont bien accueilli. waaw def nañ ci ay reportages des reportages qui existent étudiants yu bëri kontaan nañ ci après ñu ñëwaat pour ma encadrer leen thèse parce que am na temps dama bàyyi woon encadrer thèse parce que amatuma woon jot parce que encadrer thèse aussi il faut ngay lire thèse bi di ko suivre. au mois de jot mais léegi jëlaat na thèse yi maa ngi koy encadré et cetera à partir du mois d' octobre l'université va commencer à me payer parce que xam nga soo génnee si gouvernement bi les mm. six les les les six mois yi jiitu euh, tu conserves ton salaire de ministre mais su six mois yi jeexee nag ngay jëlaat donc à partir du mois d' octobre. nga